attention asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey pusu altine juróomi fan ci weeru avril miñ nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu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 ñooñu seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci gox yi ñett ci Kër masaar ak Mamel ñaar ci Almadi Diamniadio ak Mariste ak Mermoz benn ci Grand Médine Guédiawaye Golf Sud Liberté 2 Malika Njaxirat Ngor Wokam Parcelles Assainies Rufisque Scat Urbam yoof Zac Mbao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 amul benn malade bu ñàkk bakkanam bu su démb dibéer ñeent fan ci weeru avril bu ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wëññi na fanweeri junni ak juróom ak juróom fukk ak ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar wér nañ si junni ak juróom-benn fukk ak ñett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 ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci réew mi yépp ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bos bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi.